salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di wax alhamdulilah rabbil alamin sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général ku murit day gën a si Dakar ci fan yi bu soobee yàlla waaw parce que dafa am institut bu mag boo xam ne moo jàkkaarloo Masalikul Jinaan dañ koy inauguré di bërëb boo xam ne jàng xam-xam ak xasaayit moo ko tax a jóg xam nga si mu Muntaxa bu tedd bi bu tànkam yu tedd yooyu bu ko tegee Ndakaar ak jàmm nañ koy ñaanal mu egg si jàmm waaye tamit damaa kontaan parce que coalition bi ma dégg démb ñu ne waa yeewu Sénégal ak waa wàllu ñoo ànd taxawal ko pour jéem a bokk ndey bokk bàyyi jéem a soppi xar kanamu démocratie Sénégal loolu dafa am solo dafa am solo gis nga Ablaye Wade nekk na koo xam ne tey ñi mu woo téléphone ak ñi ko woo téléphone yëpp si njabootam nañ bokk ay dem boo ci Ablaye Wade la fekk baax yaa may dégg Habib Sy moo yoroon bëgg moo nekkoon bëgg ku nekk Ablaye Wade bi mu nekkee président Habib si jolof-jolof bu mag bi Khalifa Sall nekk oppose nekk si parti socialiste Sonko xale bi nga xam ne moo xew moom tamit daa dee ñëw ñu ñëpp ñu tënku daa dee ne lii nañu mën a def pour am li nga xam ne moom mooy majorité à l'Assemblée nationale su ko defee nag démocratie foofu lay amee solo maanaam nguur gi ci boppam ña nga xam ne ñu nekk assemblée di di di di dogal ci décret yi ak loi yi ñooy opposition bi ñoo fu ëpp kaddu su ko defee président bu indee dara ñu ne ànd ci ni lañ koy defee mu timbo réew mi dox dem kanam loolu mooy démocratie bi nga xam ne mooy xew ci àddina bi waaye bu fekkee da ngaa gañe nguur gañe assemblée yow say député député tàccu ak waaro lañ fay nekkee waaye bii nag dina am timbo parce que dina am loo xam ne tey lii ngay bëgg ñi ne duñ ko ànd askan bi lii arrangé ko ñu toog waxtaan ci bëgg solution kon nag tey Sénégal daal benn bopp la kenn mën a ko xar ñaar lii mooy démocratie bu yees bu bees boo xam ne tey bu fekkee ne lii li opposition bi bëgg am nañ ka bu ko defee nag Sénégal dootul amati yenn coow dootul amati yenn coow waaye nag am na ñoo xam ne tamit wax yàlla saa demee ñu kale leen bugaan xaw ma lu ko dal waaye nag war na ut sangukaayam bu baax bugaan dañ ko kale woon ci 2019 kalewaat ko ci damaa jaaxle kat parce que dama man daal xam naa ne wax dëgg yàlla ñoom ñëpp bu ñu bootu woon nekk opposition féroce bu dëgër ñu ànd ñoom ñëpp ñu nekk seen ginnaaw jiital kenn kon ay xëccoo yi di ci am ay xëccoo yi di ci am xam nga man sëñ Muntaxa ba sëñ Mbàkke ko lu moo ma aaye politique moo ne ma bul politique de am na la sëñ Tuubaa dental lu dàq politique waaye du tee sama kàddu dama ko cay joxe pour participer ci li nga xam ne moom mooy waxtaan ci jàmm ak ci salaam li nga xam ne moom mooy environnement politique bu Sénégal kon xam nga ne maa baax <laughs> gis nga réew mi Sénégal buñ ko waxtaanee ci biir toog jotaay rek li mun na nekk benn Ablaye Wade bu demee ba nekk tête liste national nga xam ne Ablaye xeewul <laughs> Ablaye xeewul xam nga Ablaye yàlla daka may loo xam ne may ko kenn Ablaye Wade ngi ñoo ñu ne fu muy jaar ñu ne puut lay jaar jaaykatu maa ngi di ko xaar. ñëpp daw ana Ablaye Wade mu def pepe pepe pepe motaar ba jaar. ku waay nekkoon da nga ko bàyyi. waaye am na ñoo xam ne dañuy jaar ñu ne kuy jaar ñu la nga nekkoon ngay nekk doo ci jóg. da nga naan a ah, jaar na loolu bàyyi la la yàlla kay def. man duma président de la république waaye fu ma dugg ñu ne ma dikkee loolu yàlla kay def il faut nit ñu nangu nag ne am na loo xam ne yàlla moo koy def ci doomu aadama bi gis nga bayra yàlla koy def ci doomu aadama bi gore ji kay mooy koo xam ne yow démb ba ba muy metti yéen ñaara àndoon gis nga boo gisee àddina bi am na loo xam ne bugg ni dalee nit nga naan ko masta da ngay laaj lan moo indi cooli gis nga gore dafa am solo dafa dafa nekk lu am solo parce que bu fekkee ne fa nga nekkoon noonu nit dara nekk foon nga ànd moom ba dara am fa ngeen di dem la metti woon yëpp ca commencement ba mu dékk ko ànd ak yow ñu dem ba jamono ji dox nga gëstu ko mu nekk koo xam ne dafa yàgg nga jël ñu bees cakka ci kawam <laughs> du dem déedéet du dem de gis nga gis nga gis nga ànd démb dañ koy yeesalaat di ko beesal waaye boo amee xartu ren rek bàyyi sa xartu daaw yi parce que yaa ngi gis ne xëy na li nga nekkee macha allah ñu nekkoon ca commencement bi sement foofu la gaay ñu bees yi mooy bienvenu dañuy dem ba ci àdduna yàlla wax na sement foofu boobu nag mooy nekk ci kanam nekk nag wax dëgg yàlla mooy àddina parce que su nitu démb da nga koy téye te xam na ne bu la dara jaral su nitu tey nga bàtte ko ni mu amee ay transhumance politique noonu la amee ay transhumance ci yeneen côté dafa am transhumance ci football am transhumance médiatique am na ay animateur ak ay nit yoo xam ne dañuy bàyyi dugg ci télé bi dem ca télé bee jaar ca télé bee jaaraat ci télé ci télé bee duggaat am ñoo xam ne dañ naan bërëb ci yow ci yow nañuy des moo tax transhumant dafa du dafa lu bàyyi sa parti dem fekk beneen parti mën nga ca yem kooku sax benn étape la deux étape waaye am ñoo xam ne dañuy jóge fii dem fee jóge fee jaar fi génn fële duggaat fe te fa ñu jaar yàq fa ñëwaat fa ñu doon yàq nag toog fa na faaj ka nga xam ne moo leen waroon dala ne leen bienvenu waxal la neex kon transhumant dafa am ay catégorie waaye la fidélité reste le seul moyen d'être humble ci environnement boo xam ne médiatique la ak fu mu munti doon politique sociale